sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. si si kanam sama place laa jëlaat si làmb te incha allah le huit. nga xam ne damay jëlaat sama place si làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man la làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi pour bëre ak moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko gën a soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti leneen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy bëre ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul ne loo ma yem ma ba jël ma loolu dina dëggal boom rek papa mi ngi wax maa ko gën a bëgg foofu làmb su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allah te lamb ji dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëri man ak asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info du nuyu kilifa diine yeeg kilifa aada yëpp du nuyu sama sëriñ notre responsable moral bu daayira Moustarchidine moom Moustarchidaat du nuyu kilifa diine yëpp kon di ma leen koy toppalee rek à chaque fois di ñaanal nag bu baax a baax ñi nga xamante ni ñu ngi waajal euh, tabaski te amuñu lu ñu def seen poche yal neen yàlla may ñu def seen poche jënd xaru tabaski. xam nga teral famille bi yëpp ci barke yonent bi yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla def tey ñu ngi fii si Guédiawaye ñu seen champion sama séeri sama xarit waaye xam naa ne moom du bokkut ak séeri évétement yi parce que événement bi day ñëw day daw loolu ma jaaxal bu événement bi jeexee mu bëgg ñëwaat waaye xam naa nu may def ak moom muy ndigal bu école de lutte Balla Gaye ñu fas yéene waxtaan ak moom làmb actualité dañ koy bàyyi nag mu nuyoo ñu dugg si waxtaan bi mais tey ndigal ni ma teeroo xam naa ba tey daf may neexal mi ngi jël benn kaanam <laughs> taqay toog concentré wu dañ koy bàyyi mu nooy mu mel ni maam booy yooyu noonu ndigal maa ngi euh, soxna fan ma ñu ngi lay ziar di jox sa wàccuwaay di sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam sant suñu waay jur di sant mbokk xarit am di jàmm euh, am nga crédit. am naa crédit est-ce que doo woo Kandji téléphone direct parce que Kandji fu mu dugg si émission bi jox ma xar. ma jaxas ma boole ko ak sénégalais yi waaw parce que heure bii ba tey sama kër gi am xar mbéyoo ko fi. man opération. damaa jundoon ay xar. Euh, ca Kasar Diop xar ya dee nañ. ñi may liggéey moo bëri te su ma liggéeyee soo yoree jur dégg naa jur gi dañuy dee. Ah. moo tax sama jur gi dee nañ dañoo dañoo génn àdduna. dégg ay ginaar a nga dégg ñuy sab. non ay mbé laa kon ay xar yu jigéen la. kër gi xar mu góor am fi yooyu caat daaw defal ko moom waaw marsa bi ko joxoon rànd. caat daaw la wala la ñoo gën a yooy xar maa ngi wax daal xar yi xar yi man xam ma est ce que am na la jor. ah caat xaram naa see laxas jaan. <laughs> la jor waxaale ma ko ñoo koy seen xar. costu de la costu est moom amul xar de. Ah. deful opération de. Ah. dëkk moom ah man de xar ah yàlla baax na. Hmm. mais comme l'islam nee xar bu jigéen man am naa xar bu jigéen wax dëgg yàlla fekkee ne. non boo amul xar bu góor yàlla nee na ma ngaa rey xar bu jigéen. am naa bu ah kon damay nga jëm ko indi nii nii ma waxee kër gi dara mbeew fi xaaral xam naa kañ bu seexee na émission bi dana taxaw Aziz Ndiaye moom diw gi dina ko assuré ak zador bi ak ak ceeb bi Aziz dina ko assuré xotti bi Baye assuré ñaw bi xam naa commentaire dañu yow looy assuré man ma assuré lekk ko. léegi lekk Balla moom xam naa ndawanal naa jël sama ndawanal si moom ndawanal. loolu dina ma jox eh, sama waay la loolu dina ma jox moom. ok euh, ndigal kon euh, ni ma koy waxee rek actualité oblige euh, dañuy ñëw très rapidement ndax waxtaan nañ ak yow waxtaanee teg yow mais ndigal fi may commencé mooy blessure yu mbëri nan ko gisee gis nañ ni blessures yi dafa commencé fréquent ci arène bi gis nañ ne gars yu bari ne ay blessure amul ñii ne bëri dañuy xool li leen arrangé ñu def ko te nan nga gisee euh, blessure gis nañ Balla Gaye waroon na bëri ak Eumeu Sène Ama Baldé waroon na bëri ak xam mooy Gris Bordeaux te loolu lépp ay blessure ñoo ko yàq. waaw xam nga am na yoon blessure la am na yoon tamit mën na nekk blessure mais blessure moom lu am la si yomb parce que te dama si gaañu te gaañu ma sama combat benn booy ma am combat ma koy contact di ko jàppale gaañu sama loxo ba day wérugul ba nii may waxee yow nii imagine kañ laa bëri woon ba léegi nii loxo bi nii tey su ma dóor si mun ma see dóor léegi kon blessure boobu noonu bu dee loolu mën na nekk dëgg xam nga moo tax am na mais li koy gën a waral mooy ñàkk entraîné normal parce que tey athlète da war di daw li physique mais ñoom lutteurs yi en général salle lañu ëpp li ñu entraîné moo tax suñu bëggee yëngatu yéen yëngu dañuy parce que seen biir seen muscle du du du du parce que nit dafa am ay studio ne daw yenn daw yenn moo ko mën a yëngal moo tax sa yaram bi yëpp bu yeewoon na nga soo di toog dugg sa oto taal dem ba saal wàcc nga am ay ay ay que en fait entraînement dafa am lu mu laaj quoi waaye mën nañoo glace sa yaram ba mu nekk glace nga bëgg a jël bëgg a tàngal faaw ñuy xam loolu di étiré wu di daw parce que soo xoolee en général si mbëri mag yi la ëppee kon da ngay xam te wala ñoom ñu jëm mag rek waaw man tamit ñu jëm jëm mag tamit wala mën a jëm nekk jëm mag sax tamit xam nga nit moom boo yore ay soxna ay ñaari soxna ñeenti soxna. mu def entraînement naa di naan glace di lekk lekk yu neex yi yooyu mën naa andi ay blessure. ndax neex neex bu bari baaxul. neex neex bu bari baaxul de. loo tuddee neex. ah neex neex neex ne moom si côté yëpp neex neex la neex si biir lekk lekk bu neex naan bu neex néeg bu neex. wax ju neex neex daal xëyoon neex da ngay gis boo bëggee tey sama ubbi metti da ngay da ngay gaañu da ñoom la te ñoom nii daa bari neex neex bari mu baaxul wax dëgg yàlla baaxul. sa leader Balla pour une première fois mosoo ko dugal médical ñu ngi si combat Eumeu Sène déggoon nañ wax ji moom sax ñëw na ci ñu bari ne xamoon nañu combat du am comme tey soo ñëwoon ci blessure Balla ndax euh, première blessure am suma dé suma juumul moom ak Boy Niang ba muy blessé yow fekkoon na la fa blessure boobu noonu ndax ñu ngi ñu ngi koy dégg man ci kombaam ak Yékini ñi naan kombaam ak Gris Bordeaux la woon blessure boobu noonu. waaw Balla Gaye moom man côté boobu du ma si condamné parce que comme c'est la première fois mu def ko dinaa carrière Balla Gaye mënoo bëre parce que 30 combats c'est la première fois nga mos a renvoyé te yàgg nañ ko demandé ñun. man tey boo Balla Gaye su ma déggoon compte boo ñaa du bëre parce wax naa ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais mu bëggut yàq journée mais jamono ji te man wóor na ma làmb ji fekkoon am na enjeu booba période boobu bi nga yàq li bari boobu politique yëngul Balla Gaye du ko puus Balla Gaye yooyu da koy dundal moom bu laa mu amee coow nii yëngatu yooyu da koy bëgg a bëri mu jeex mais xam nga peut-être dëkk bi ñu xawee stand by coow yu bari santeeg moom mu ne daa blessé kon foog mu puus combat bi non bu doon bu doon jamono yooyu làmb di gën a jax coow li bari

tout sauf ça loolu mënul nekk moo tax Balla Gaye sa sa encourage bien xam ne sport dafa am ay réalité dafa am blessure parce que léeg-léeg Zidane ni mu toll si France bi France Sénégal di football dafa blessé toog si banque bi xool Zidane ni mu toll te bu mën na gagné Sénégal parce que blessure yi seen blessure yi ndaw la ñu amee duñ ko duñ sooxaale parce que seen avenir mooy gënal benn mag si boobu léegi avenir Balla Gaye moo ko war a te yaa ngi nii boo ñaa daan si xale bu ndaw te wur ci ay blessure nga topp blessure yi entraîné woo blessure ko di ko sooxaale di ko sooxaale bu ko sooxaale ba ñoomu daal la da ñun ko naqar boobu ñu teg jour boobu est-ce que Balla Gaye mënuñu ko fay si Eumeu Sène te Balla Gaye man su ma duma laa Eumeu Sène daanam ñu kit su duma Eumeu Sène daan ko ñu kit maag yàlla ñu kit lu ma lu ma ko jàpp lépp lu ma naqaree si moom damay daal di neex Eumeu Sène kay ñu soo di kit maag moom boo ñaakee li ma si Balla Gaye def moom foog mu daan Eumeu Sène ñu soog a kit waaw non moom bakkanam lañ siy teg non ñun muñ si moom mooy bëre ñun kay dañ ñuy dem lépp luñ mën nañ ko siy teg moom. mais moom duñ ko nangu mais moom ma si wootee teg ñu jàppale ko si. Eumeu Sène mun laa daan trois man moom góor mun maa daan trois fois. Ah. Eumeu Sène parce que sëñ Saliou mun maa daan trois fois. billaahi waxuma ko ngir dara suñu demoon su ko bëggee su bëggee su ko mu woo Sidi mu woo mu wax fu ko neex buntu këram ah. wala ñoo taxaw fa contact trois combats su ma daanee trois fois yëpp barke bàyyi bëri. looy wax ni. billaahi wal kitaabi. foo teg lool. ñooñ ñooñ kenn mënu seetaan trois fois. Ah. ñoom ñëpp. waa ndigal foo teg lool. dañ maa ëpp doole mënuñ ma. dañ maa ëpp xaalis ma mënuñ ma de. mais bu daanee sa leader du mooy li ma dafa daa topp jeunesse am quoi ak xëddam man te su ma bëree am seen trois fois sa géré sa géré suma combat sa def ndànk sa tey sa sa parax paraxee rien damay def ndànk si calcul bien damay xool ni muy bëree ndànk ma def ndànk ñu jàppante naxante wure ba bëree kenn daan bu ko defee benn su ma naxee bu njëkk bi daan ma deuxième bi du ma nax wala troisième bi du ma nax man loolu laa fas yéene ba ma waxuma ne que ni seen ma ñëw jël fa ama seen néew ma doole te am na lu mën ci bëre dañuy nodd ngi dégg sa si faire que man ma ñëw gérer combat bi kenn si ñooñu ñooñu ku ma si ma daan trois combat amul kon Balla euh, tey deux fois yi mbëre yëpp kon da jàpp dafa am boo xam ni yan erreur la. heureusement benn bi. mooy Balla Gaye dafa xamul ne Eumeu Sène mbër la ba tey xamu ko parce que taay Eumeu Sène xëy na ak euh, daa am bëri booy bëri ñoom doon jàppee mbër day dal yenn yenn sénégalais yi léeg-léeg dañuy am mbër yu ñu xeeb am mbër yu ñu ragal te duñ sax danger boobu am na ku mel ne Fils de Balla maa ngi koy nuyu en passage gars yi jàppuñu ko mbër te mbër la ñu bëri ngi yéen jàpp ne benn bële mel na benn jaaytaar xamante moo leen mën fuuf isamam laax loolu day am si mbër yi day am mbër yoo seen seen seen ni ñuy doxee ci làmb sañsee set rafet pour ñoom sénégalais pour ñoom mbër bu bëggee boppam wala mu dal wala mu teey rek du mbër Eumeu Sène ak Balla Gaye loolu da ko xaw a dal ba tey nangu la Eumeu Sène mbër la te pour mu daan Eumeu Sène foofu ma xam ne champion la respecté ko dox wàcc bu mu sa xeex andil ko bëre bu bëre kese jàppante moom da koy daan Balla Gaye maa la ko fu njëkkee jàppante Eumeu Sène si biir géew ñu jàppante si biir géew jàppante ngeen Balla Gaye da koy daan waaw bu njëkkee jàppante si biir géew mais amul sens bi ñaari combat yëpp soo xoolee bu jël daam Balla Gaye du jàpp du jàpp dañuy roofoo rek ëmb aj ko xañ ko boppam xam nga ko bala nga jàppee mu jeex parce que bala nga loolu la ko yàlla may ku koy daan da koy gaaw daan bala laa jàpp mais bu la jàppee moom bu la ko mën si ciix nga xam ne góor la téye moom. solo beneen bi mooy fi may duggaatee mooy euh, ndigal wax dëgg yàlla nag gis nañ ne da nga xew yi dëpp ba manifestation yi amee ba tey ñu gis sa ndigal <laughs> ñu gis sa dafay def ay sorti defaat fi ay sorti ñu gis ne clash yi bari na def nga fi sorti yow ak sa yeneen moroom Balla Gaye def na fi sorti Modou loo def na fi sorti Eumeu Sène def na fi sorti euh, bu yàggul barki dem te loolu yëpp pour yéen ñi leen doon attaqué tey ñoom ñaa ñoom ñett ñoo ñëpp seen i sorti ban jàngat ci def yow. seetaanu ma seen sorti ba mu jeex ay ay dag ay dag-dag jot boobu amuma ko foog ñu xam ko ñoom ko si yaakaar maa ngi lay seetaan da ngay nax seetaanu ma si kenn. wallaahi seetaanu ma seen émission yi barki Alxuraan am sa jot boobu parce que ndax saxan nag dong daanaka lañ fay wax. ndax saxat nag comme wax joo xam ne waxi ay maamaray baay ak dëxina ma gënal mbaxal ak wax façon wax yooyu man yooyu daa am ma jot di déglu xam nga mais am li ma teewal dem parce que dama séen dem si TikTok bi fi fi koy woowee appel mu mu ah, daal di daal di léegi loolu intéressé ma ma dem siiwur si dagg-dagg yi ay ay ma dégg bi kaay di waxee ñi en général ñi nga dégg ñuy wax ñu bëri defuñ fi dara nangam sangam. ma toog man ma posé sama bopp question ne kon léegi Sénégal ne kon foog nga daan ay mbër soog di mën a wax si réew mi. loolu Père Becaye sama papa jooju maa koy nuyu. dana comme en général ñi nga dégg ñuy wax ñu bëri defuñ fi ay benn combat la ñaari combat defuñ dara ci làmb quoi kon ma xam ne kon ma man man damaa yeex xam loolu quoi pour man xam man ba ma daara ja laa kon nag làmb boo boo deful dara war a wax si réew mi moo tax ma bëgg préféré noppi léegi parce que déggu ma fi tamit dégg nañ Modou tamit mu wax même wax ji ah dégg nañ Balla Gaye tamit mu wax même wax ji euh, est-ce que loolu ndax ban jàngat na ci yow. waaw ah, parce que ñun ñoom Moustapha Guèye ak ñoom Tyson yàgg nañ fi mosuma xam nga nag yàgguma ci làmb mais mosuma gis ay mbër yu dem pale ñëw def riche leader yëpp def conférence de presse di wax moo tax lii am li daan am bu daan am bu ko néewoon di am lii lu am mais ñoom dañoo doxee ñu ñu xamut moo tax ñu waxee ñun ñu daaw waxee ñun mais ñoom bu ñu jël wax ji yóbbu ko si affaire ko ne ñoo lëpp xaalis ñooy wax wax wala ñoo lëpp ay victoire ngay wax pour man affaire bi du foofu quoi que nit ki mën na am benn victoire xam si réew loo xamut wala mu am ci loo wala mën ci loo mënut nañu waxante dëgg mais affaire bi na ko léegi ñoom ñu ñu ñëw si ñoom yóbbu ko si waxu xam mooy mooy caaxaan ak ak wax mbëri dañoo sox rek suñu diw mayee nangam ni koy jël ñu waxuñu fi kenn bu la mayee bul jël mais jëlal sa coobaree bopp nga wax sa waxi bopp te ba nga jël askanu làmb dugal leen ci teg leen ci taabal ji wala nga jël sa askan teg leen ci taabal ji problème sénégalais yeeg mbëri loolu kese la mbëri tey personnellement am ma seen kese ba demee si Macky Sall lu si yoonu kenn mais demu man Macky Sall te dem maa déggaat benn waa di ko bañ ci Malick Thiandoum bi ñu fa demee waxuñ si kese dagg bi ñuy dagg man sama combat kañ la Jacob barki seexul xam ma damaa jeexal CNG te bëri naa ci ay mono yoon dañuy bëree ba pare barki alxuraan xaar lika wala yaa ngi dem CNG ñu ne jeex na mais yow ndigal ñu gis yow ni nga mel ak Balla Gaye 2 ndigal est-ce que tey jaaduwul woon bu déggoon mbër yi dañ leen jox benn 33 millions wala benn cinquante millions ak yéen ñaar ni ngeen mel est-ce que jarul woon ndigal jël benn téléphone woo ko ne ko dégg nañ lii ak lii ak laa kon ni ko Modou Lo waxee nga woote laajte ne ah ñun ko dégg nañ lii ak lii ak laa nii nan la demee nan la demee pour nga comprendre euh, est-ce que tamit loolu ndigal ndax ñu ngi gis ndigal ñu bari sax ñu naan ndigal ak Balla lu xew

Tapha Mbeur daa génn di nga gis ngan di dofi conférence de presse ñoom ñu génn ak seen i xaftaan ku ne di waxee waxe guy gi ñaan Dakar ka xam nga Tapha Mbeur maa ngi koy nuyu en passage mm-hmm. mag boobu maa ngi koy nuyu bu baax a baax échange sama bëggoon ñu fal ko ministre de la lutte Tapha Mbeur ñett ñu waxee que ni yéen euh, dégg nañ sax ay wax que yéen ñuy wax ñu waroon a pour bàyyi ba prouver ñoom li ñu am ñu am ko et tout. même Balla Gaye waxtaan nañ waxtaan nañ avant waxtaan nañ après waxtaan nañ gisee nañ de. gis waxtaan nañ non am na noonu tey waxu comme moom dafa ñëw ñu gisee toog waxtaan si biir privé si waxtaan du waxtaan dama koy tax tout le devant Sénégal di ko wax parce que su doon na ko bëgg a wax da koy si wax seen man damaa ñëw si en tant que doomu aadama respect ñu wax ak man waxi nit dégg naa tamit li ma wax avant tamit lu jiitoo man posé naa question li nga wax ni laaj naa ko daañu nañ fii ma laaj ko ko moom baabooy waaw ñu wax nañ ma. avant maa génn wax benn site benn site wax naa ak Balla Gaye man. mais xam nga léegi. avant bi may wax xamoon naa de bi may wax xam naa bi mu fekkee may wax xam naa xam see man du bëgg a wax rek. du bëgg a wax de li may xam naa ko de man wax nañ Balla Gaye tase nañ fii si sama dëju pap bi maa ngi koy ñaanal yàlla suñu moom jégal waxtaan nañ wax na ma waxoon nañ avant ma ma jox leen rendez-vous samedi ne samedi bu soobee yàlla dinaa wax waxoon nañ de waaw. gis nañ ni barki Demba Ndiaye ba mu toogee mu ne moom Elton lees la dañ doon bokk ay mbapat dégg nañ sax muy expliqué ne dem nañ ba ñoom ñett sax dañu doon bokk sëriñ ndax comme ni ñu wóolante ak li am seen diggante est-ce que loolu tamit ba tey mi ngi am école du Balla Gaye man ba ma combat jox ko ay caat doo defal ay lajjor ay ay ñoom yuusu yuusu yuusu yàgg na maa yóbbu sëriñam yuusu yàgg na am combat jëli ay ay biital saafara biir këram sëriñ ba ñëw fa jox ko fa mu jëli ko ñëw yuusu barke yàlla damay loolu loolu moom day am gis nga euh, kii complice fépp la am tey jii moom moom Balla ñun ba nii nii moom day am combat ñu jëm suñuy sëriñ kam mu yëg ko am bañ ko yëg wallaahi si man combat Balla Gaye yu bala maa dem damay xam la fay xaw de man dama koy xam barke alxuraan loolu loolu moom àdduna ñaam parce que ñu bokk teen ñooy lax si ay goj loolu dara ñaaw ba tey loolu dara jógee ko fi ne yàlla bi du problème mu làmb problème mu sénégalais bi ak réew mi ñoom ni ñuy déroulé ak ay leader ay leader yu mal communication man loolu laa gis. ils waaw waaw mais mais waaw maam noonu moo baaxul mais man pour man dara problème amut ñàkk xam ni ngay waxee moo moo am ak tamit ñëw bëgg bëgg a imposer Sénégalais yi loo xam ñoom gëmuñ loolu. mais mu wax si tamit. moom dafa waroon noppi. dafa waroon noppi. parce que moom fii gënu fee nekk kenn bandi. barke Seydina Mohamed Zarko dafa waroon noppi waxi dof rek lay wax wax dof rek lay wax. da ngeen a liggéey. guy gi dépassé guy gi moom da nga liggéey moom daa pertoon ni moom lañ ni def lañ bëgg a def dafa dem ba jommi si làmb dem ñëw yàlla ubbi la ko ay buntu comme ñun ñu def nii ñun moom ñun mën nañoo gën a peer moom dañoo gën a ñoo gën a normal fuuf na yem Zarko na yem waaw. beneen bi mooy tamit perte bi dafa guy gi gën ko nekk responsable yaa guy ga duggandoo si làmb guy gi lim am na nga am guy gën la fayit gën la waar waaye liggéey li mu am nii am fi ay teraangam liggéey bi mu ñëw emprunté la woon ñu ne fi emprunté ba am fi li mu fi am tey nga bëgg a ñëw di ko minimiser di ko malmé guy gi suñu patron bi mooy ba tey école de lutte Balla gis nañ Balla Gaye tamit defaat na communication euh, ci moom ak waa relation ak waa Casamance dégg nañ ko ndeysaan mu ne papaam daf ko manqué Père Balla daf koo manqué wax ci ay séries yoo xam te ne papaam lañ fanaan daan dem moom xamu ko. dem euh, ñu gis ni euh, foofu noonu ñu bari ñu ngi critiqué ah ne ko ni mu communiqué ci wàllum Casamance mais loolu ah, xam nga communication sens la quoi nga wax mu tax wax Balla mën ngaa jum si biir communication léeg-léeg nga gis nag nit ku ne li nga yóbbu police si biir wax mën na kaa wax ba wax benn moomu du si bàyyi xel wàcc raay bi mais loolu Balla Gaye amul intention wax waa Casamance lu ñaaw parce que moom Casamance la am ci xam nga comme ni ko waxee ba am moo fa daan dem mais loolu c'est normal man mii tey am naa sëriñ yoo xam ma leen. samay nit ñoo fay dem di indi léegi tey bu bu kooku bu fi kooku jigee man na sëñ ba man naa kaa ñàkk bu dee amoon benn relation ak moom noonu la demee rek mais moom Balla Gaye Casamance la am waa Casamance la xëy nag communication comme ni koy waxee rek Sénégal tey booy wax tamit ñoom dégluwuñ li naaj la fi nga defee heure la mooy intéressé quoi mais Balla Gaye Casamance la am moom na jëmaat juga ànd ak waa Casamance mais bu ñàkkee tamit ay ñoom Père Balla am na Aziz Ndiaye ak ñoom Baye Ndiaye Balla Gaye ñàkkut yooyu mi ngi mi ngi yàlla na ko susuwàll bi laaj na góorgóor rek wallaay na góorgóor rek na góorgóorluwaat yàlla baax na quoi c'est que àdduna mooy doxee noonu yaa yaa de woo i débat comme ni nga ko waxee i débat demee nii suba mu demee nee mais jëmmi Balla Gaye yàlla nga suturaal baax. Hmm. beneen bi mooy fi may jeexee jeexale ak yéen muy fani mbërki démb ba tey soo ci sorte yi mu def def na boo wax ci relation ak Lamine que du kursam xaritam la ñu dégg ni mu waxee peut-être gars yi comprendre ñu fu mu waxee ñu gis ni polémique yi bari Lamine Golo di ko nuyu au passage def na ci sorti mais loolu nga ko gisee du sama coach sama xarit la loolu nan nga ko gisee. lu si Lamine wax. dégg nañ Lamine. lu mu wax lu mu si wax Lamine. Lamine nee na du ko sëm Lamine tamit loolu wax nee na du ko sëm loolu am comme Balla Gaye nee na du ko sëm Lamine nee na du ko sëm man tamit nee naa du ko sëm. Ah. nee naa du ko sëm ah. du coach. Balla Gaye nee na Lamine du ko sëm Lamine nee na man du ma ko sëm man ndigal nee naa du ko sëm. wallaahi ma loolu. ah man Lamine Lamine mooy sama kusu ah man am ma gën a gudd man su ma amee combat Lamine lay gis ci man su ma Lamine noo sama kusu ma perte. mais loolu ko gisee nag sérieux que mooy li ma mal communication day am xam nga tey nit ki du da nga kaa dàq bëre war na kaa gën a xam dara mënut a nekk loo xamut c'est que ñoom ñëpp dañuy mal communication ba si ñoom père bi kaay kooku li ñu wax noonu dañu mal communication ah kon du du communiquer ak sax bay wax du wax sax Sadio Mané parce communiquer foofu ñoom Père Bécaye dañ cee non si parce que ñoom dañ ne soo amul ay victoire yi comme daanoo ñu bëri waroo wax loolu man pour man amul fenn si àddina kon sa doom mënu fee judd màgg fi ba ñëw ëpp la wërsëg pourquoi mu lay ëpp xaalis te nga jur ko te nga jur ko mu màgg fi man ba mën laa ëpp xaalis dalaa dàq liggéey dalaa gën a liggéey suuri nga liggéey liggéey ko du loolu affaire yi néewul foofu quoi nit ki mën na bañee sax ma sa takk ngemb jóge fa la ñëw coach la ndax tey te ñu ngi lay coaché parce que entraînement lañ lay coaché kii mën na am benn xam-xam ci lam te lam yàgg nag te mbir mi loolu loo yàgg nag bu yàggee nga am si xam si dara de. parce que nee na am na lu mu xam te non loolu mën na ne parce que lam da see yàgg te lam nag barki Serigne Sall waxuma ko ngir dara Balla Gaye ndax lam nag Balla Gaye ñoo ci man mais bëre mbëru at combat boo jël bu ne tiit naa ci combat bi wala mbër mi wala nangam ji wala mbër mi soo deful lii wala wala mu xool na daloo sama xel en général combat yi li nga koy gagné bariwul de loolu moom man moo koy seeral man moo tax ma ragal Lamine Golo si côté boobu mu ne dalu ci xel xelam dalu si wala mu ne mbër mi nangam wala mbër mi nangam boo ko doxee boo doxee ci ko wala mbër mi boo xaaree wala mbër mi mënu laa daan wallaahi yangi man da damay am combat Lamine taxaw waatal ma ne ma yaay daan su mu paree mu ne xam laa ko damaa gis nga entraîné am nga doole ci combat bi waaye damaa gis ne kii amul qualité la ma daan moom foofu la koy dem ba yaakaar sax Lamine sëriñ la coaché comme ah yooyu daal ma see wax Lamine ak Balla Gaye daay xarit lañ ñoom ñaar dinañ waxtaan Lamine ak Balla Gaye ñoo far billaay ñoo fa yii démb la ñu woon démb taaw taaw taaw mburoog ndambe taaw mburoog ndambe Lamine Balla Gaye ay Baye Mandiaye yu ñooñu dañoo yàgg ñooñu dama leen daa ñëw di leen seetaan géej jóge daara ji ñëw di leen seetaan barki sëñ Fallou Mbacke loolu xam nga sax koy Balla bëgg leen di leen seetaan ñu toog dégg ensemble kon tey seen détails yi ma du si dugg sax sama néew ci mënu ma si dara dama see mënul dara te bëgg ma see wax lu may xeewee wala lu may mere te mënu ma dara mais Lamine daal ku baax la Balla ku baax la Balla baax yooyu moom kenn du ko nattam leen baax na trop mais communication nag dafa yomb te xëy na tamit mal attendre rek mais jublu ta wax li gaa yaakaar loolu la bëgg a wax bu ko wax rek dafa jub parce que moo moo moo Lamine problème la woon kon moom xay na mënu ko coacher si benn côté ndax problème la foofu la bëgg a waxee ndax man si biir mi ngi koy wax nee na mën na coacher yenn booy ñun ñi ñu njëkk si équipe si côté boobu mën nañu si coacher parce que man sax normal Lamine Lamine man damay coacher ndax damay wax sama combat yëpp moo ko gérer entraîné na man takkal ma gant jàngal ma xeex yóbbu ma isaat toogal ma ma bëri daan wax dëgg yàlla moom moom moom moo ñu ko sa ay yuusu ay boyo ñoom moo ñu ko sa de parce que amaguñ niveau buñ Balla Gaye am amaguñ mënuñoo fay kos te Lamine ñun fayuñ ko Balla Gaye tamit mën na am kos bu mu fay mën na fay ay kos mais ñun mënuñoo fay kos man day ne may fay kos bëggee fay Lamine fay si boxeur fay si ñaanal si doo soo payee doo am leen lu yóbbu njaayaan loolu la mais Lamine ñu ngi koy ñaanal yàlla xam na gën a nekk affaire yàlla baax na di encouragé Balla Gaye di ko ñaanal moom it mu wér ba mën a ñëw bëre combat bi ñoom it nee na daal école de Balla Gaye la mais lii du cas ah. non ko am. du ko am du ko am nañ yàlla baax na. Balla Gaye dara Balla Gaye de sama patron la maa ngi koy ñaanal di ko wax na xar amagul. Balla Gaye ñu ngi koy clashé dafa ëpp. non clashé tamit kii nu mu tudd euh, booy boobu Lat Dior nee na am na ñoom tey ñu ci biir école bi dañuy wax Balla Gaye rafetul la bi. ma Dior ma ko. Lat su ma ko dégloo su ma man lay wax man ma duma ko. <laughs> Barke Sëñ Fallou Mbacke. non Balla Gaye ñun nekkuñu di ko classé gis nit. nit da ngay wax dëgg ñun Balla Gaye man mënu bu amee combat maay takk rajo yi di wax ñu may saaga yaay combat boo ñaa dama see wax la ma doon ñaal boo ñaa lépp dal na ma dama doon ñaal boo ñaa biiram daw si isaar bi ba bu ñu daana Balla Gaye barke alxuraan sama bi bi doon daw boo ñaa ak xam damaa dal si combat Balla Gaye bi kon mënuma Balla Gaye ma bëgg daw bi ay fàtte damaa ñëw bi naax combat bi xam di fàtte di naax barki Serigne Saliou Mbacké si caméra la nekk lépp damaa dal boo ñaa am gàllankoor loo ko yéene dalay dal damaa fàtt damay fàtte nécessaire bi gëlëm billaahi wallaahi taalaa yéene yi ma amoon si boo ñaa yëpp damaa dal kon kooku noonu da ñun baa nga avant ñoo nekk ay nawle mbërëm dañ koo bëgg di ko supporter te mbëggeel ko dara ko dindi mais nag doomu aadama mal attendu day am si lu mu mën doon mais li ñuy wax nii si cadre làmb moom ni nii ñu siy waxee moom waaw bu ñuy wax si làmb moom bala nga sama wax sama damay wàcc sama niveau wàcc sama grade wàcc sama lépp wax ak moom ci temps waaw ndax je l'aime beaucoup xam nga mais nag cadre politique moom da see ànd ak mbooloo moo xam ne sooy wax si mbooloo yi maa seppi wax si patron jàmbur muy mënuloo wala amul seen bàyyi sama patron moo tax ma maas nuun gi rek laal le ko na a màggee a yoroo a am si teraanga tekki na si réew mi kon la laa a xase mais xasuma ma pour ko mais nag Sénégal ko def de du ko def tey kat bi ma si saaga waxoon naa ko ñii commentaire naan ay di saaga ne ay dama liggéey dama dul ku ma saaga na may fay soo ma nee ma nangamtaan tànn ma ne la sa dàll yaay commencé ko si tànk jëm si kaw su dee góor nga sa dàllu papa commencé suuf jëm si kaw waaw fii réew ñoo ko bokk nañ ko lijjanti gérer ko mu jeex. waaw oh, mais kan bi pour lan sama coow dafa commencé wàññeeku gàllaaj la kii su ma ko sampee nii fi nii ne ñoom ñooñu mbër yooyu ku si ñëwoon tey jàmmaroog man nii su ma ko ba taxaw ba ñëw jàkkaarloo yow am moom damaa bëgg bëre moom. barke sëñ Fallou Mbacke ëmb seen su ma doon a jeex pied gauche ngemu gauche bi nii ba fàqu mu daw ma daw ba def demi version wër ko ndomb naa ko daan jël bu rëy eh, ñooñu mënuñu ñooñu mënuñu barke yàlla mënuñu mënu looyu mënu ma wala mënu loo mënu ma mënu loo mënu barke sëñ Fallou ñoom nañ jël sama ma Gris Bordeaux Gris moom maa ko mën barke sëñ Fallou maa ko mën Gris kay rakk ji laay ragal waaye moom maa ko mën <laughs> Maodo Maodo laa ragal waaye Gris maa ko mën

kontaan naa ci yow. Euh, delloo nañ la ko di leen baalu àq mbëri mag yi di wax mbëri mag yi di leen baalu àq di leen ñaan yàlla defal jàmm si si tabaski gi ñoom VIP di leen wax ne comme yéen dañ leen defal teraanga ngeen def conférence de presse ñun ñun defalu ñu ñuy wax bàyyi la ñuy wax suñu wax rek waaw ñu askan bi tamit defal lañu teraanga ndax wax dëgg yàlla fan yii su ma su ñoom bu ñu defee vidéo ma def vidéo fan yii samay commentaire moo ëpp seen i commentaire maa ngi gën a positif le maa ngi gën neex la fi ne nii dañu may commentaire commentaire yu neex te yéen ay ay dagg ay saaga rek lañuy ay dagg ay dagg benn mbay laa gis ko benn mbër ma wax ma kii mooy kan ci mbër yi Sénégal yéen ngeen nekkee baaxul nag naan kii mooy kan ci mbër yi sax. mu ko déet waaw mun ah, ma woon naan kaas ba ñuy daje foofu nu mu mujjee moom mun loo temps doon benn programme naa ko ñëwuma de yéen woote leen ma woote barke sëñ Bamba mun loo buntu naa fa woote naa fa woote ab tànn bi wala dara nii maa koy gën a fees la foofu muy sàdd sàdd yamal ah wala la topp ñun ama la ñuy topp. ama ñu koy defal kañoon. dama joxe naa te dinaa joxe waaw su ma tabaski ba su ma desee desalee sama des tabaski bi barke yàlla naa ko dugal si kañoon ama bi c' est que ama du affaire de man billaahi wallaahi contre ma kenn nii mais Sénégal daal war nañuy xoolal ni ñuy communiquer waa te bàyyi tamit ni ñu nekk seen libre indépendant nekkuñ jamono yu mbuuma ak njaam buur ak jaam ñoom daal Sénégal boo amulee waroo wax te dof yu nekk si réseaux sociaux yi nga xamante ne ñoom ku wax ñoom su xasee bëgg nit xooluñ ñëw ni si dëgg xoolu ñëw si dëgg xool moo moo wax lu baax xool waxul lu baax ñoom daal bëgg nañ ko seen yoon ne ku wax ñu saaga la ne bul wax si moom loolu ndox loolu yow mbër mi nga bëgg yaay dëgg bi yaay def lépp yaay nangam moom moom waxal la rek la man waxal boo demee président Macky Sall doon na ko saa yi ñoom ndigal seen xaalis dañu leen dagg rek CNG day dagg seen xaalis bi stade bi li ñu koy luyee promoteur dafa seer nangam sangam sangam nañ ko wàññi ndax bii yi mën a yomb booy mën a seetaan làmb ji te làmb dañoo fexe chaque année Balla Gaye mën see bëri ñaari yoon Modou Lô mën see bëri ndigal mën see bëri trois fois wala quatre mais yow yaa rien waxoo dara lu ci jàmm xanaa àgg naa ko seega ko wax ne ko ne yaa ne woon ñoom bu ñu si kanam sax duñu wax duñu ko wax ni problème sénégalais yi sama yoon laa bëgg defaraat quoi. combat bi dafa nekk combat boo xam ne. combat bu am important la suma carrière. si si kanam sama place laa jëlaat si làmb te incha allah le huit. nga xam ne damay jëlaat sama place si làmb. man may xale man maa nekk si yoon. man làmb gën a yaakaar bu dee bëre maa ko dàq bëre bu dee doole maa ko bu dee fit maa ko dama jël combat bi pour wane suma bopp dama jël combat bi pour bëre ak moom dama jël combat pour daan ko combat bi maa ko soxla téeméer yoon man combat bi ñaanu ma ko yàlla lu papa am si man damay seeti leneen su dëggalee boppam dañuy xeex dañuy bëre ma daan ko incha allahu rabbi dama xamul ne loo ma yem ma ba jël ma loolu dina dëggal boom rek papa mi ngi wax maa ko gën a bëgg foofu làmb su dëggalee boppam mu duma ko daan ko incha allahu rabbi te làmb ju dama deux minutes su dëggalee boppam ñu bëre man ak moom She's real hot, but they said to never date her.